halaan bikum sëy ba doxoon ci diggante yeewi askan wi ak taxawu Sénégal tas na tasar lang ni ki démb ca assemblée nationale yaaw seetal fukki député ak ñeent yu taxawu Sénégal farandooru Xalifa Sàll ya fa ñoo tekki seen ndomba tànk ca groupe parlementaire bu yeewi askan wi ba tax wal fajir yéene kaay na Xalifa Sàll ak Sonko fi mu toll ni yegg nañ foo xam ne amatul deltu ginnaaw ñàkkante rek enquête yéene na ko fi ni fa leer nañ fa ñoo tàqalikoo bàyyante neen muy Khalifa Sall ak Sonko intaha c'est fini réew mi yéen kaay na Pastef ak taxaw fi mu toll ni kay fa dammu xar tas seen diggante laas yéen kaay na ko groupe parlementaire bu yeewi askan yi fa tasaarloo les si ko yéen kaay na leen mënta ñàkk di ndax Pastef ak taxaw fi mu toll ni fa ñuy ñàkkante maanaam jubóowuñ ba tàqalikoo nañ li ni mel moo leen jural ñoom waa yeew yi ñàkk nañ ñeenti poste ca bureau assemblée nationale fa ngay xool yi nga xam moom la Pastef tegoon mooy ne biro bi nga xam ne moom la waa yeewi askan wi proposé assemblée nationale waa taxaw yi fa ñoo yëg ne ñoom bokkuñ ñu ca moo tax ñu gaaw ñëw démissionné waaye député taxaw bi ñuy wax sànnu jonn moom fa bañ ba tëdd ca naaj wa nee na moom du tekki ndombal tànkam groupe yeewi askan wa foofu lay des waaye li naataango mi def yeneen député yi ànd ak Khalifa Sall moom du ko def ndax gis na ne loolu dëgg du yoon te rafetul Biram Souleye Diop mel ni ku naan ko li nga waxee dëgg ci boppam ñoo jël dogal ne député taxawu Sénégal yi yu Khalifa Sall yi buñ leen ci boole ndax ku nekk gis na seen taxawaay fi mu toll ni ci assemblée nationale fa ñuy attaqué fa fañoo dem ca dialogue ba te ñun d'accorduñ ci woon léegi nag biñ ko yóbboo fa xam ñu yolleeku wax waa taxawu na leen bokk leen ca bureau ba te loolu secret la kenn waratoon koo yëg ba tax ñoom ñu tekki seen doom ba tànk waaye fa ñoo waroon a xam ngor ndax fa ngeen di fàttaliku mairie bu Dakar Barthélemy Dias biñ fiy kajji di dàq génnee conseil yeewi askan wi Pastef fa ñoo ngor nit kee su ngeen di ànd nga dem ba mu yaa gis na fa soppi doxalin xam ñeneen lu mu lëkkaloog ko xam nga droit bañ koo boolee ci bureau député Khalifa Sall wax yéen fa ngeen ñu def leen ko info yéen Khalifa Sall ya taxaw fañ leen a xañ ay poste ca bureau assemblée nationale yañ xamoon ca biir yeewi askan moo tax ñu tekk seen domba tànk yéen kaay bi ne kon fi mu toll nii léegi nag guerre ñàkkante moo am diggante Khalifa ak Sonko bés bi yéen kaay na ko moo tax fi mu nii fa ñoo néew doole ca bureau assemblée nationale poste yëpp presque waa Benno ñoo ko jël vox populi dëggal ko ne fi mu nii doole ja tolloo tudde assemblée Benno fa ëpp doole ndax waa yeewi xiiroo na yow yi kan moo war sa morom l'évidence yéen kaay mel ni ku naan ko ah en tout cas taxaw moom war moom trahison gaa leen koy jiiñ de xaw nag waaye fi mu toll ñoom li leen dal baaxut ñoom waa taxaw yi ndax seen député yi fi mu nii mënuñoo bokk ci benn groupe parlementaire maanaam ay non inscrit lañ léeg si ko kaay na hée faa leen di yootal dara benn bokk yaakaar ñoom proposé nañ wax nañ waa taxawu Sénégal député Khalifa fa ñoo yi ne quotidien yéen a kaay na fa ñoo tàqalikoo ngay wax ku nekk dem na yoonam bàyyi moromam moo tax it benn bokk yaakaar moom ci bataaxal bi ñu déposé ci bureau assemblée nationale fa am ku ñu war Abba Mbaye bokk ci député Khalifa Sall yi na leen hëy bu ñu foxantoo gis ngeen yéen li ngeen def nii ñàkk ak responsabilité gu mat ngeen ci wane waaye fi ngeen ñu fekk les seco yéen a kaay ne si jamono ji xam ne nag yeewi askanu ñoom tasaaroo nañ benn bokk yaakaar ñoom seen député ya fa ñoo ñoom ñëpp nekk benn ba pare tànn gi ñu tànn Abdou Mbow mu nekk seen président ci d'accord leer leneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Aïda Mbodj moom fa mel ni Sonko la àndal de ci coow li Dakar Presse yéen kaay ko xamal source a ne ca geneen wàll ga Aïda Mbodj fa door parrainage-am bi juróomi téeméer responsable ya nekk ca partem ba kenn ku nekk fa koo sas sans parrain lu jëm ci programme bés buñ ko falee présidente bu Sénégal ma ngi koy leeral la mu leeral moom Thierno Alassane Sall mooy ne Boun Abdallah Dionne mii mooy la àndal candidat yi muy wax ni yëpp fay sóob rek ma ngi ko waxee ci critique yéen kaay l'observateur na ko ah, fi mu toll ni fay dugg di attaqué njiitu réew Macky Sall ak ñum àndal te moom ku déggaloon njiitu mi la Thierno Alassane na ko fa mel ni li muy wax dara la ci gëmut fay fuural rek la dépêche yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne Serigne Mboup moom itamit door na campagne yu parrainage bi ndax mu mën a bokk 2024 googu nag Amadou Ba moom fa cee nar a ñàkkante ay candidat yoo xam ne ca biir bennoo lañ bàyyee te loolu baaxul ci moom la baax nag ca Amadou Ba waa siggi jot na ñoo a a kaay na ko wax na ñun li ñu war mooy ñu fexe Amadou Ba mii leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne xaalisu corona bi fa am ab société boo xam ne CHH lañ koy wax moom de xam na ci xaalisu corona bi lu toll benn milliard de ci lu manqué juróomi téeméeri junne masque maanaam benn masque bu nekk la mu ko jaayee gars yi ëpp na ñeenti téeméer ci jamono ji nga xam ne masque cent franc la ko doon nit ñuy jaayee ay cent franc ak fukki dërëm libération ne lii kay kilifa yi naka lañ mën a fexe ba li xam ba mujj seen source ay yéen a kaay moom fa ñoo xamal na ca Casamance soldat jàmbaar yi fañ fa doon laale ak bëggoon a jël ay miin ndel la teg ko fa ca jàppante ba nag am na benn doomu aadama bu ca ñàkk bakkanam tàggat yaram Sénégal tay lay bal ak Cameroun bu 18h30 jotee ca réewum France jogante xaritoo stade yéen kaay libération moom fa ñëwaat ci communicateur traditionnel ba ñu wax ne fa tëddee ab xale bu góor ca diwaanu Pikine violé ko waajax Makumba Mbay fay animé émission lamb ca rajo Oxygène les si ko moom fa ñoo xamal ab xale bu góor boo xam ne fañ koo tuumal ne sàcc la maanaam fañ koo jàpp ko jàpp koo dóor ba mu sedd bakkanam allah juróom-ñaari nit nag teg nañ leen loxo ndax fa ñoo jàpp ne fa ñoo bokk ci ñu doon dóor kañ wax na sàcc la ba mu dee keneen ku ñu dóor ba mu naroon a dee waaye fërëcc mooy benn waay faa leen di wax li mu def yaw seetal waa ji daal fa xam xarit bu góor xarit bu góor bi na ko man daal faa soxla jigéen ju ma ànd ak daal xarit bi na ko xay fa may jox cinq mille francs rek ma dem andil la jigéen boo xam ne fay jaay boppam ah waaja jox ko cinq mille francs xarit ba nag dem lekk cinq mille francs ba ba sonn gisut dara boolewut ci wax fa bàyyi ba suba rek mu fekk toog fa rocci ngandum ponkalumaa mu weñ rek daal di koy mbuqi dóor ko xarit bi mu daanu na xëlës daal di xëm ñu mujj sotti ndox waaye xaw tuuti ko mu dee hmm, waa ma ne man faa xamul yéen ñaar kan moo tane li ci xarit mooy ki lay digal lu baax faa soxla son bopp nga ne ko demal takki jabar waaye àndi xaalis ma utal la mujj nax ko yéen ñaar daal mburu foofu ko fëriñ six ak neuf ngeen kenn tanewul sa morom abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay yu wér te wóor mi ak ci bitim